di leen sant bu baax a baax nag di sant moo asasatul wafa bi xoqi iman ci seen taxawaay yi ngeen taxaw di taxawaay yu rafet taxawaay yoo xam ne ku am xel mu rafet ku ne rafetlu na ko muy taxawaay yoo xam ne bi ngeen ko tàmbalee léegi yaakaar naa am na ay dizaine ay ay at at yu bari la te lépp doon loo xam ne day yëwénal diine doon loo xam ne day yëwénal am réew doon loo xam ne day rafetal li nga xam ne moom lan am ca suñu lépp muy ak taalibe képp koo xam ne mu ngi topp seen jataay yi ak di ko seetaan ak di ko teewe da am yokkute ci diine waaye da nga ak yokkute ci bëgg am réew waaye danga am yokkute ci taalibe ak xam sëriñ bi ndax jataay yi ma dégg yëpp dafa bari ci fànn yu mu jublu jataay yu yoo xam ne tana wax gi ci nekk moom a ci neex côté bu ne damay dégg ngeen seet ko xam loola ngeen indi ko ca ku ko ku ko xarañ lool mu wax mu wax ca loo xam ne ñëpp a cay jariñ kon nag ñu leen di sant bu baax a baax ci seen mbooloo mii di ko ànd ak yéen bu baax te leen xamal ne waa Touba gépp ñu ngi rafetlu seen jëf ji di leen ñaanal nag yàlla yàlla fay leen li ngeen def yiwu baree baree bare bari tey ñaan yàlla itam nag yàlla bareel seeni kem ci yoon wi alhamdulilah mi ngi bari itam nag seetlu na léegi bari bi mbir yëpp yu bari jataay yu mel ni ñu fi am waaye ñu ngi ñaan mu gën a bari rek yàlla gën a dëgëral seeni tànk ak seeni cano ndax bara bii nga xam ne barabu yar la barabu xam-xam la muy Daarul Muxti boroom dëkk bi sanc ko ci yare ak jàngale dafay defar ak ruu waaye fi defar ay yaram kon nag dëkk boobu bu fi taxawee lu mel nii def ngeen loo xam ne boroom dëkk bi bég na ci waaye Seexul Xadiim sa bég na ci kon nag ñu leen ci ndokkal bu baax a baax di ci ndokkeel sunu maam jooju nga xam ne moo taxawaloon barab bi ci waxtu wu metti wu jafe ñu ngi leen di sant bu baax ci occasion bii ngeen ñu may ñu ñëw bokk ci seen jataay bii ngeen cëral ñu ñëw mën cee am sunuy kàddu muy loo xam ne nag ci njëlbeen dañ ciy dog ngànt ndax amuñu xibra bi amuñu tajriba bi dañoo wuy rek ngir am pas-pasu suñuy bokk yoo xam ne li ñuy def war nañu ñu see sonn jamono yu ne woo ñu see luñ tële tële tële dana ñëw rek man xam ne lii ñuy def moom ñu ngi ci biir waaye lin may def loolu moom xeeb naa ci sama bopp bu baax a baax ndax ndax bokkuma ci waxkat yi nga xam ne seen wax leer na bokkuma ci ñi seen gëstu xóot comme sëñ Ahmad Bakke ñoom ñoom ñun miin na wax ji ci waaye sama kaar gi day dañuy rek la def xam naa ne kon nañu leen sant baax ci lii ngeen a xam ne cëral ngeen ni ko ci seen liqaawil xilmiya bi arrohiya waxtaan bi tey ñu ngi xunwaan bi moo doon dawru suyuux fi istiqraaril mujtama roolub sëriñ si ci dalu réew mi stabilité réew mi nan la ci sëriñ si taxawe ci njëlbeen gi dañ leen di leeral ab lan mooy sëriñ ak seex ak ahamiyatu seex soog leen leeral mafhumul istiqraar lan mooy ak dal ak lan mooy tax ak dal dëgër ci réew soog leen wax nag taxawaayu sëriñ si li am ci réew mi ba tax dal am ci réew mi nan lay def ba aar loolee ba tax dal gi sax bañ fay jug kon ñu jël benn bi ñu wax leen lan mooy ab seex seex baatub seex ci loxo mooy mag rek mag ku màggat moom lañuy wooye seex boo dee ci loxo tan boo demee ci arxaan da nga gis man waxaasa baxli sayxan kooku mag la jublu sama borom kër bii kat màggat la moo xam ne wër sa mën a am doom wa aboona sayxun kabirun foofu mag la fi firi ba tey ak inna lahu aban sayxan kabira foofu fépp mag la ci rek lay firi waaye bu dee istilaaxan nag dafa am ay maanaa moom sayxu mbooloo mu dajee mu ne kan jiital seen kanam moom moom lañu dina ko wax seexu seexul xabiira ab fami kaca jiite jiital leen def na ko waaye seexu mbooloo mu daje itam moo xam ab day rewal lu mën doon ka ko jiital def na ko wax seexu nit soxnaam boroom këram dara ko wax seexu yooyu yëpp waaye bi nga xam ne moo ñu ñor mooy bi nga xam ne moom moom lay woy rajulu diin allasi yadxoo ilal xayri wa yaquudu ilayhi ki nga seexu bi nga xam ne day kilifa ak diine di woote ci lu baax di ci wommat jëme ca yaakaar naa seexu boobu lañuy bëgg a waxtaane kon sa yoxu ab sëriñ lañuy leeral sëriñ nag dafa xaw a senegal dafa dafa li ñuy wax léegi kenn mënut a xàmmeeti lépp ndax dafa lépp ful dara leerut ci réew mi sëriñ sëriñ léegi dafa ku yor xaalis ab sëriñ la kuy doon falu ab sëriñ nga ku am xam-xam ab sëriñ nga léegi xameetuñ ke lu doonoon ab waaye sëriñ nag lu am solo la ndax ab sëriñ bi koy wax mooy ko koy wax koo xam ne diine da ko da ko sàkk moo tax yàlla moo wax ci Alxuraan ne yaa ayyuhal lazina amanu atiiu llaha wa atiiu rasul wa ulil amri minkum ulil amri minkum nag kooku ab sëriñ lañ ko lañ koy jàppe ñun kon diine moo sàkk ci ñun ñu wut ab sëriñ ulul amri nag mooy boroom xam-xam ca la bokk boroom xam-xam bi jëfe xam-xamam waaye kilifay diine gi nga xam ne itam mu ngi yar nit ñi di leen woo ci diine di leen tàggat kooku ci ulul amri la mu mel ne nit munta ñàkk ku koy womat ni ñu yàlla bind doomu aadama faaw nga am lu la tënk nga nekk ci ginnaawam loolu mu tabi xam insaan moo moo ko def moo tax faw lislaam wala mbooloo mu mën di doon faw ñu wut koo xam ne mooy nekk ci seen seen imaamatu di leen teg ci yoon kon kooku mooy ab sëriñ ki nga xam ne mooy nekk ci kanamu mbooloo mi di leen teg ci yoonu lislaam di leen génn ci ak réer waaye di leen jëme ci seeni ci njariñ islaam jum fonk jum fonk imaam maanaam njiit ay ñu tukki sax ñett ñu tukki dafa dafa digle nan tànn kenn ci ñoom muy seen imaam fu mbooloom daje war na am imaam te kooku mooy sëñ bi jiiti mbooloo ma bi Maba Jaxu wootee ba kilifa yi fekk ko kilifa yépp ci réew mi dem ba demee doona daje ne mënuñoo ñàkk imam nan tànn seen biir Maam Mor Anta Sali lan seen imam kon mbooloo faw ñu am imam koo xam ne moo leen jiite teg ko seen kanam doonte mën naa mën na leen bañ a gën sax waaye faw ñu wutal koo xam ne moo leen jiite kon nit mënta ñàkk ku nekk ci kanamam di ko womat waaye nit mënut a ñàkk itam ku koy yar xaajatan tarbawiya mënut a ñàkk ci nit kooku itam ab sëriñ moo moo koy defal nit koo xam ne dangay taxaw moom di gis muy def lu baax di gis ay jikkoom yu rafet nga di ca roy kooku ab sëriñ moo koy waral boo gisee Sayxunal Xadim bi amee bi amee ko dëkk ci moom ne ko damaa bëgg ku ma defar mag ñi bu njëkk bi ñu ñëw ci sëñ bi ku leen defar leen bëgg bokkut ak léegi moom ñu ñëw daanaka xamatu lu ñuy wut si waaye booba ku ñëw ci sëñ bi ñëpp ku leen defar leen bëgg am dikkee ne sëñ bi dana bëgg ku ma defar sëñ bi tontuwu ko mu demaat dellusiwaat waxaat ko sëñ ba mu ñett yoon sëñ bi ne ko demal seeti sëriñ Balla Fali ndax moom defar naa ko ndax defarkat daa aaja taqoo ci amatuma jot taqoo kon kilifa faw muy taqoo kim bëgg a defar muy xool ci moom di roy ci moom kon nit munta ñàkk ku ko yar koo xam ne dana roy ci moom kooku ab sëriñ la lay doon kon ab sëriñ munta ñàkk ci ni nga xam ne mënoo ñàkk ku la womat ci àdduna waaye noo nga mënta ñàkk itam ku la yar ngay roy coom ci jikkoom ba ba mujj mel na moom moo tax ko defee ngay roy ci moom ci lépp moo tax sëñ Tuubaa wax ne wala simu man laa yasaalu haabida li rabbihi ila hudaw xaayida na ngeen di taxaw koo xam ne du dañ di jaamu yàlla di leen womat jëme ci sunu boroom wa man yurid li rabbihil wusuula falyabqi qabla sayrihi dalila ku bëgg a egg bala ngaa tàmbalee dox wutal ku lay teg ci yoon wax man talaba al wusuula lil jalili falyastasim bi sunnati rasuli bi an yulaasima mutiyan laa yamil fi shaahirin wa baatinin an istabil ku bëgg a egg ci yàlla da ngay mooy ci sunna si Yonent bi sallallaahu alayhi seet koo xam ne mi ngi topp ci yàlla bu wér ku dul jàng ci yoon bi nga taxaw ak moom koo xam ne yaquuduhu bil bi tarkil xaada koo xam ne dana la yar ci xam-xamam yar la ci jaamu yàlla nekk nekkim lay yaree tam nga bàyyi aada yi nga xam ne amul solo kon ab sëriñ nit mënta ñàkk kilifa goo xam ne dana ko wammat ci xam-xamam waaye wamma ko ci jaamu yàlla fi innahu yaxuudu fi baxri rada wala yimuhu sayun abada li annahu yaquuduhu saytaanu wa nafsu walhawa kama abaanu képp koo xam ne nag nanguwoo am kilifa gu lay wammat ba nga nga xam ne saytaane ak sa bakkan rek ak sa bànneex ci ngay wammatoo te ñooñu ne ku ku ñuy wammat ci alkan rek leen da yóbbu suñ bi waxaat ne fa kullu man yataadib samana xalaa yadi seexin fayal xal meana képp koo xam ne sii nangoo wut ab sëriñ bu yar ay coono càpp ngay am sa dund bépp li anna man adama sayxan mursida fa sayxuhu seytaanu xaysu xasada képp koo xam ne amuloo sëriñ bu lay teg ci yoon xamal seytaane mooy doon sa kilifa sëñ bi waxaat ne wa man araada alxurba min fal yadlu man sayxan wa yadlu suwara képp koo xam ne bëgg nga jege sunu sunu borom da wut ab sëriñ tey jàng alxuraan kon nag wax naa ne nit ñu ñu topp ñu sax ci topp ndigalul suñu borom te di ko toppa ci ngir ci ndigalul suñuy sëriñ bi amri seexin waasirin mu rabbi digalaat nu ne fasluk xalaa yadi mu rabbi naashe na ngeen sóobu ci loxo yi ki nga xam ne mooy yare di laabiire koo xam ne dafay womat jëmale suñu borom waaye yooyu waaye yooyu njàng yëpp lii muy tegtale ne kon nit mënta ñàkk ab sëriñ bu koy womat di ko teg ci yoon wi bu bëggee àgg fa mu jëm waaye kenn mënta tëb rek kenn yéelu la nga bëgg egg fa nga bëgg a jëm kilifa nag faaw nit am ko moom ñi nga xam ne sax wan nii nga xam ne dañuy bañ ne doon amub sëriñ am na lu am loo xam ne moo taxawaayu sëriñ rek mooy yem ndax koo xam ne booy def dara da nga ko tàggu bala ngaa def dara xool ba xam lu lu lu ci lu muy def kooku mooy sa sëriñ kon kenn nekkut sëriñ kon ñu xam ne abub sëriñ amran doroor yi yan la film tamit kenn mun a ñàkk kilifa bu ab société société ku ci amul kilifa rek société boobu mën naa mabbu faaw mu am kilifa buñ bëggee société bay dox kon loolu mooy rol kilifa istixraar nag gi nga xam ne mooy ak dal ci am réew ak ak sëriñ si taxawaay bu nu am ci ba war a istixraar boobu am istixraar stabilité moom lañ koy wax mooy lu dal lu koy dëgëral mooy day am buumi buum yi nga xam moo da moo dajale société bépp foo mu dëgër ku ci ne cause ba nga nekk taxawaay ba la ca war nga taxaw ca fexe ba loola yéen bu ko defee bu bu ku ne la ngay yor yëwoo na lee dëgër la leen boole dëgër jàmm rek day daal di am istixraar nag boog moom mooy subootu was dukoon dal dal li ñuy wax dagal waaye mooy sawalu siraax wal xurubi wa ixtifaau saqaafati al xunf istixraar mooy réew mu dal moo xam ne amul xuloo amul xeex amul xunf léexu yàlla violence ba noppi nag nit ñi am xoriya liberté seeni àq itam ñu jox jox leen ko ba noppi ku nekk nag ñu ormaal sa morom loolu mooy indi istiqaaratum réew faaw ku ne nga jox ko liberté am jox ko ay droit am ku nekk ormaal sa morom réew mu am istiqaraar mooy réew moo xam ne waa waa réew ma am nañu dal duñ tiit mu mel ne istiqraal wala al moo jiitu ci ab dund nit balaa lekk ka naan dafa am jàmm waaye moo jiitu itam ci iqtisaadi naamiya économie bu lu mu dox dox réew ma bu amut istiqraal nit ñi duñ ko yëg moo tax lii nga xam ne moom la Sénégal am muy istiqaraar woowu stabilité réew mi dal loolu nan ko jéem a conserver bu baax téye ko bu baax a baax ndax ñu xam ne lu réew neex neex comme bari bari bari ca amuñu al na wal istiqraar duñ ko yëg bari na réew yu am lu ne waaye yëguñ ko ndax ñàkk jàmm bari réew moo xam ne luy développé réew ma fa waaye amuñu ko ndax amuñu istiqraar ndax boo ko réew mu amul istiqraar kenn du tal dara nelaw yu baax sax doo ko def nit sax bu amul istiqraar nit ku dalut da nit di sàngam ñu ne kooku daal dalut doo mën a taxawal dara kon istiqraar lu am solo la ci ab dund istixaara nag jàmm moo ko moo ko waral bu ñu gisee sayidna ibrahima salaam bi mu ñëwee makka ba muy ñaan sunu borom lim ko njëkk a ñaan mooy al amnu wal istixraar rabbi hal haazal balada aminan wajnubnii wa baniya an na'buda al asnaam fi waxaat ne rabbi sal haada baladan aminan warsuqo alahu min alsamarat man amana minhum billahi wal yawmil bi muy ñaan balaa dara dafa ñaan yàlla jàmm aku dal ca fam nekk soog koo ñaan nag koom-koom ak wërsëg sotti ca wattu sotti ko ci dëkk ba comme ko ñaanee sunu borom soog nangul ko ñaan googu fa jaxalahu haraman aminan laa yasuk fii damu insaan muy moo tax makka ci dëkk yi ëpp jàmm ci àdduna la dëkk boo xam ne kenn du fa xeex dara du fa sottiku kenn du fa xuloo kenn du fa rëbb rab yi sax kenn du leen fa rey kooku ñaanoog sunu maam Ibrahima ci gim ñaanoon ngir jàmm am fa mu mel ne kon tawfirul am xam la tawfir risque la la la Ibrahima def daa ñaan ak dal am ba noppi mu soogoon ñaan nag dëkk ba am wërsëg kon ñu xam ne am nu ak istiqraar madlabun dururiyun li kullil bashar nit munta dund dund bu neex bu dal ca àndut istiqraar waaye ànd ak jàmm moo tax say Sayxul Xadiim bi muy sanc dëkkam be moom itam loolu la fa ñaan wajal ariimana ariiman amina wa kun bi hifsihi kafilan daamina soo ko wax na wajbu lahal xayra min aljihaati assitti wakfiha an il afaati waxaat ci biir na wa arda wa ardat hun wa ardahatal warda risqin wa amaan wa rahmatin wa saxatin kulla awaan kon jàmm akuk dal ñu baax ñépp bala ñoo ñaan dara loolu la ñuy ñaan seen seen barab yi nekk ak seen dëkk yi nekk ndax dëkk walla barab bu amut ak dal amut istiqraar dara mënu faa taxaw lu fa taxawee tam dana màbbu dawru cheikh fi hasil istiqraar sëriñ si nag seen taxawaay ci dalu réew mi loolu moom lu cosaane la naka jekk réew mi dal gum am kilifa yi ma sunu maam yu baax ya ak sunu waajur ya dugal nañ ci seen loxo te loolu di ko waral kilifa kilifa yi ñoo taxaw taxawaayu ñuy womat diine ji te yàlla dafa dafa wax na li toxrija naasi mina leen ila yi ñoom dañu fay dikk ngir génne nit ñi ci ak lëndam yóbbu leen ci leer comme loolu la leen fi indi nag dañuy defar nit ñi defar gi mooy fexe ba ay caay-caay ak jikko yu ñaaw yépp ñu dindi ko ci ñoom waaye fexe ba ràng leen jikko yu rafet yi ak yu baax yépp te ñaar yooyu boo ko jëmbatee ci ak am réew indi nga fa istiqraar ndax nit ku ñaaw jikko wala kun yarut mooy yàq am réew waaye kun yar def ci yow jikko yu rafet jikko yu ñaawoon ci yow ñu génne ko lu baax ak lu rafet rek ngay xam moom ngay def te loolu suñu kilifa yi mooy seen mission bi njëkk mooy defar nit defar nit képp masa jaar ci loxoy Sëriñ Tuubaa ba nga fa jógee ba nga demee fa nga tunduwaayoon yépp dañuy ñëw nga leen di defar koo ko jàllaat ci beneen defar loolu moo defar réew mi ba réew mi dal ku ne koñ ba nga nekk waaye kilifa yi itam day ne ñooy xamsatu wasl ci mbooloo yi bu fu kilifa amutoon yor réew mi dana boo gisee réew yi af wër Sénégal yépp di tàkk ñàkk jàmm lool danoo amul kilifa yi yi nga xam ne moom lañ am ci réew mi kilifa goo xam ne si bu waxee ñu déglu ko bu déglee ñu topp bu teree ñu ba loolu Sénégal rek la ko yàlla jagleel loolu nag moo tax dëkk bi jàmmu taaw fi ndax saa bu dara yëngoo rek saa seen baat génnee loola day daal ne teg dal ñaar saabu soo amee ci ab mbooloo bu seen baat génnee mbooloo ma war taxaw kon loolu ci li nga xam ne tax na dëkk bi dal la bokk waaye crise yi nga xam ne ma na am ci réew mi yëpp itam moo xam crise politique la moo xam crise naturelle la mu bu mu amee bu ne baatu kilifa yi duggoon na ci da koy tàmbalee ca 62 wala mu romb ko sax te diggante ngàllandoog beleef ngay tàmbalee ci am saa taxawoon na ci taxaw bu leer bu wër mu ñëwaat 62 ci kirisub Mamadou Jabi ak Léopold Sédar Senghor Cheikh Amadou Fall taxaw taxaw bu wër ba loola dal ak kat ak 68 bi garab métti boobee waaye 88 itam Sénégal tàngoon na fi lool metti lool ñu baree bare at moom la xam couvre-feu ak état de bari ci xam naa 62 la amoon amaatul ba booba moom it ba mu agsee foofa ba président ba ku ne xam na ne taxawaay ba ci Cheikh Abdou Lahad Mbacké taxawoon ba yooyee sedd ba bëkk démb crise bi am amoon ci deux mille vingt et un la mars bi moom it ku ne gis na taxawaay yi ci kilifa yi taxaw ak sunu kilifa bopp gi ba tax la dal sedd waaye jafe-jafe yeneen yi am ci réew mi bu mbënd ma saa am ko tàmbalee ci ca lakk-lakku Sonacos ko woon ca Dakar ba mu lakkee Cheikh Saliou génn na xaalis bari def ko ci dimbalee ko mbënd ma fi amoon jamonoy Abdoulaye moom it Cheikh Seydou Mokhtar yéen ko école na xaalis bari def ko ca lii xew bëkki démb rek ñu accident metti boobu nga xam ne metti woon na lool ci Kaffrine yëg ngeen li ci Cheikh Mahamadou Mountakha def ak jëng bu metti ba am ca Turc moom itam dégg lam ci def ak yeneen yëngu yi am ci biir yëpp waaye ak yi mi ngi xew ci biir bokki jullit yi mu ciy teg loxoom yooyu yëpp mandargay dalal am réew la bu amutoon ci réew jàmm du fa mën am waaye saa bu saa bu yëngoo kilifa yi yëkkati seen kàddu yëkkati seen alal def ca ngir loola dal kon kilifa yi kenn amu seen pay ci dalal gi ñuy dalal réew mi waaye nag mu des boo xam ne itam mooy liggéey gi ñu nangoo liggéey kilifa goo gis ci yoonu murid bi am na ay tool yor fa mbooloo ñuy liggéey liggéey boobee di jariñ réew mépp waaye di jariñ njaboot njaboot gépp waaye kilifa goo gis ma ngay soññ ay taalibeem ñu dem liggéey def kas kas bu la alal ku ne yaa ngi jàppale sayit dan daa nga daa dëkk ku ñëw nga jox ko ak dundum atam jox ko ab yiwam jox ko boole ko ñu koy jàppale loolu sëriñ ku xam sëriñ xam ne loolu lañ doon dund ak taalibe yi loolu lépp ci luy taxawal réew mi la lii indi jàmm la waaye kii dafa sëriñ boo fa gis tam yor na daara daara joo xam ne ay centaine de personnes ñoo fi nekk nga di leen jàngal di leen yar bu nu réeree nga faj leen di leen xottil ay yére loolu lépp lu sóyee la ci dalu réew mi ndax yooyu yëpp ba amutoon fekkoo ne ab sëriñ amu fi ay junniy junniy xale ñu ngi ci mbedd mi ay junni junni junni ndax état bi amul do amul doole taxawal ay jàngukaay yoo xam ne fii waa réew mi dana ci jàng ndax réew moo xam ne soixante quinze pour cent yi fi ne mooy de trente cinq ans la réewum xale lañ yor kon bu fi sëriñ si newutoon di dalal së di dalal mbooloo mi di leen yar di leen jàngal <coughs> li may daara yi nga xam ne daara yi murit la yi bindu xanaa suñu xale yi moo nga xam da nga ma junni la waaye nag yi bindu wutam xaw naa toll noonu ndax man sama daara bindu wu ca maa ngi xam naa ne dafa nekk seen daara kenn bindu wu te kër yëpp pare noonu la kon kenn xamut mbooloo mu toll noonu moo xam ne ñëpp murit ñoo leen sëriñ si ñoo leen yor. te loola kat ci li dalal réew mi la bokk ndax fépp bu amutoon danay mel ne dëkk yi ñu wër nga xam ne xale xale dañuy nekk ci mbedd ma rek di yàq ka toj kon loolu yëpp ci lu mu war a sante kilifa yi ci taxawaay bi taxaw ba jàmm am ci réew mi seen taxawaay ci social tam sëriñ si dañuy génn ci ay sarax di ko joxe ak àddiyee yu ñu leen di jox di ko indi di leen ko jox te muy delluwaat ci nit ñi xoola boo demee fi ne boo demee li dëkkal sëriñ si ci suukar ak tàndarma te lépp day delluwaat ci nit ñi nga dem Tuubaa nit ñi néew nañ doole lool bu takk fan jotee ay junniy junniy bool yuñ togg yu Baay Faal di indi mooy dikk ñu tasaare ko ci nit ñi ñooñu ñëpp am lu ndogoo ñu jàpp ne ñooñ ñëpp fekkoon ne amuñ loolu ndax daan toog seen kër te loolu lépp ci liggéeyu sëriñ si la ci réew mi li nga xam ne moo moom moo amoon ci ba lislaam di dooru ubbi muy baytul maal nga xam ne ci la nit ñi dajale sëriñ si léegi ñoo taxaw taxawaayu bërsi maal boobu malheureusement nag nit ñi ni ñuy jàngate sëriñ xamuñu ko Sénégal dañ naan sëriñ si rek ñoo yor bi ñoom lañ ko jox xamuñu fare sëriñ si li li li nekk seen seen loos wi xamuñu ko ndax nit koo xam ne ay téeméeri téeméeri ñoo nekk aju ci man sama daara jama jama yor dafa la fa nekk ko si néew maa leen di dundal maa leen di faj maa leen di wodd def lu ma di fay jàngalekat ba leen jàngale te ña fa indi seen doom ndaw juba ci kenn dara am na ñoo xam ne si danaa am at ay ñetti at du gis seen waajur sax te ñëpp kilifa yëpp noonu la mel am na ko ay natt li suñ Cheikh Saliou yaakaar naa dongo ci yoonu murid la doon wala ci réew mi sax laay wax daa am njiitu réew bi da ko da ko doon wax ne ko dama bëgg jàppale ci daara ndax dis na waaye boo ko sëñ Cheikh waxee la ko bàyyi ak mu ko bi njiitu réew mi la ak saa ne ah, nan nan seen ndékkili ba xam rek ba mu ko leerale la muy li waa ay dongaam di ndékkee dana ko sëñ lii kenn mënu ko kon sëriñ si li ñuy daj ci ci nit ñi nit ñi liy dugg ci ñoom lay gis waaye gisuñu li ñuy jëf te wallaahi li li ci réew mi buñ ko xamoon dañ leen di fay weer sax la ndax dëkk bi bu dalee nii mel nii mu mel taxawaayu sëriñ si la kenn nattablu ko malheureusement rek ñu baree bari xamuñ xamuñ xamuñu dañuy seen nit ñi ñëw ko seeraay dem rek waaye gëstuwul nag nan lañuy dunde man de léeg ma dem ba man sëriñ bi de moo ko waroon teg itam fee ndax waxuma ñàkk ñàkk indépendance ngay def rek day mbett ceew kon sëriñ si am na taxawaay bu rëy boo xam ne ñu ngi koy taxaw ci dalub réew mi li ci ëpp solo nag mooy dajale gi ñu li ñuy dajale si kër sëriñ loo xam ne Sëriñ Tuubaa moo ko fi indi xam nga bu njëkk kajoor kajoor bi day ragal bawol bawol bi bawol bawol bi ragal saalum saalum bi saalum saalum bi ragal jolof jolof bi danoo tàqali ko woon sëñ bi ne moo leen dajale dikkee ci kër sëriñ bi fekk fa ñëpp ajoor baag bawol bawol baag saalum saalum baag jolof jolof la dajale ci kër gi ñu ànd bokk dund ba tax loolu amatu ci réew mi boo demee kër sëriñ boo dem nga fekk ab Casamance ci kër ga fekk fa ko jógee fekk fa ko jógee nekk ci kër di fa tërbiyee di fi yaroo bokk benn biyaa bu ñuy dund moo tax daanaka léegi taxale amatut ci réew mi dëkk boo dem fekk fa day rëbb Sëriñ Tuubaa fekk fa kër Sëriñ Tuubaa ñu fay jàng xasida dafa fa jàng alxuraan waxtaan ci sëriñ bi loolu lu am solo la ci réew mi tax na boolewaat na moo gën a tax réew mi gën a booloo ba amatul frontière kon yooyu yëpp ci istiqraar bi nga xam ne sëriñ si ñoo ko tax réew mi am ko kon nag li nga xam ne war na ñun ñëpp ñu taxaw temm ba istiqraar bi nga xam ne moo fi am bañ fa jógee ñu sàmmal ko suñuy waajur yi ak suñuy maam yi wàcc nañ taxaw nañ taxaw bi war ci seen digganteeg réew mi taxaw nañ sax bu war ci seen digganteeg nit ñi yar nañ jàngal nañ ñu jëf nañ ñu gis li nag mooy ñu fexe ba loolee ndono loolu ñu aar ko ba bu mu yàqu tayaaraat yu bees yi nga xam ne xew nañ ci yëpp dikk ngir màbb keno yi nga xam ne suñuy kilifa yi tabax taxawoon nañ ko bu mu ëpp fu ci ñun nag ñu taxaw aar suñ keno yooyu ba kenn du ko màbb ndax bu màbbee rek ñu yem ak réew yëpp Sénégal moom exceptionnel la intellectuel yu bari sax dañ koy bañ boo waxee ñu ne Sénégal bokkut ak réew ñu ne ma réew yëpp yem toujours day mel na ñoom dañoo yéene am ay sax ndax ngir ngir loolu la ngir ay jàmm ji ñu ne sëriñ soo ko taxawal am na ñoo xam ne dañuy bëgg sax réew mi ñàkk jàmm ndax ñu xam ne Sénégal yëpp waaye dañuy sonn rek Sénégal bokk yemut ak réew yi ba dinañ tukki ca yem kon nag nan góorgóorlu baax ci li nga xam ne moom la sunu waajur gi doon dund muy atasaamuhut ijtimaahiya tabe ci seen bopp ci seen bopp waaye tabe ci seen alal wàcc ba tolloog ñépp di dimbali ñëpp fum mu dégg ak juuyoo wala xëccoo ñu dem defar loola nan sax loolee ñu ñu taxaw ca bu baax a baax mu mel ne istiqraar boobu lu koy dëgëral bokk na ca ijtimaa al kalima wa taatu waliyul amri maa lam yamur bi maasiya li tax istiqraar bi sax bañ fa jóge mukk mooy ñu gën a boole suñu baat nangoo am genn kilifa ndax bu kilifa yi baree rek taqali ko mën a feeñ kon nag li koy dëgëral mooy ñu gën a dëgëral baat bi say topp ndégalul ki nga xam ne itam mooy suñ kilifa ku nag am nga sa kilifa bopp kilifa googa am kilifa gu mag nag waaye ku ci ne tënku ci sa kilifa googee tax yàlla dafa wax ci alxuraan yaa ayyuhal ladhiina aamanu atii'u llaaha wa atii'u rasuula minkum kon mu mel ne suñu borom danoo tere génn ndigalul kilifa loo tax mu tànnee ko daa bari lu muy yàq saa bu kilifa waxee ñee jaar fee ñee jaar fee dafay ixtilaalu istiqaar dafay tax sax stabilité gi amoon loolu da koy dindi kon sunu borom dana koo tere loolu nag bari na léegi moom wax dëgg yàlla mujtamahaat bi moom léegi kilifa wax ñu taxaw fee ñenn waay yoo xam ne kenn du xam sax ku mu doon weddi wax ja baa ma teg ca loolee te ci ci teg ca leneen lu ko loo xam ne jëruwut te xam ne li tax mu def ko moom mooy daa nekk fu ko kenn gisul rek waaye mu def ko rek bismil xuriya war ne man maa moom sama bopp ku wax ku ne sañ naa caaw dugg sañ naa ko weddi wala mu wax caa ma neex loolu am na lool waaye nag ñun taalibe yi moom na nekk fan newoon rek xam nga digal moom bu génnee dund ñëpp a koy topp waaye gannaaw bu bu génnee axla bi moom daan ko topp loolu rek ci am solo kon nan dëgëral loolu ca mën a indi ku tàqali ko ndax ko moom li ñuy indi moom ak dox fu wal xasima moo loolu moo loo moo gis ñu tàqalikoo rek léegi tey ñu néew doole te bu néewoo dalee léegi tey seenu noon dal ci seen kaw daaneel leen loo tax yàlla wax ci alxuraan wa atiixu llaha wa rasulahu wa la tanaasaxu fa tafsalu wa tashaba riikum yàlla ak yonenteem ba waaye bu leen xëccoo ci dara ndax bu ngeen xëccoo kat da ngeen yo yonga da ngeen di échec te bu ngeen échecgee seen kattan gépp da daal dem seen noonu man ci yéen dara man man dara kon na ngeen moytu xëccani xëccoo yàlla waxaat ci Alxuraan ne ñi nga xam ne ñooy tàqale nit ñi ak jullit yi yàlla yàlla xëpp leen ci mbugal mu méttee métti wax na wala takunu kallazina tafarraxu waxtalafoo min baxdi ma jaahum albayinat wa olaika lahum azabun azim bu leen mel ña nga xam ne sunu boroom da leen boole ñu tax ban booloo am lu leer ne lii mooy jub gi lii mooy dëgg gi ñu tàqale ko ginnaaw ba daal di ak seen biir ñooñu kat sunu boroom nee na koo def ku ne sunu boroom nee na am nga mbugal bugal ku rëy kon nag ñun ñi nga xam ne am nañ lu wér ci booloo gi ca gis nañ lim njariñ bu wér suñ booloo kooge nañ koy téye bu baax a baax yonent bi sallallahu alayhi moo ñu dañuy bu baax ci booloo waaye du ñu tere bu baax ci tàqali ko ak xëccoo dara wax na yadullaha maha aljamaa wa man sassa sassa fi nnaar waxaat ne aljamaatu rahma wa firqa xasaab kon booloo lu am solo seyxuna alxadiim moom itam di wax ni bëggante ak soppoo ak jàppante baaxe dina ko ñaanal ñun ñëpp waccal xuluubana ala tawaadudi bila tanaasuhin wala tahaasudi wala taxaasumin wala tadaaburi wala tabaaxurin wala tanaafuri xata najira muslimina xaasiin wa muminin moxlisina آلهم وقد وتلد من المسلمين الضر لنا أغلاء فنفى ضرا foofu ñu ñuy ñaan ñu bëggante bañ a xëccoo bañ a añaanante bañ a di xuloo bañ di kump kompalante seen biir bañ di fañante te doon ay xarit bëggante suñ biir loolu moo doon suñ baasu murit kon nag nañ ko téye baax te moytu kàddu yi yenn kàddu yi li muy yàq moo ëpp fuuf ci amul benn njariñ te du yéwénal dara kon nag nan gën a lu baax ci luy dëgëral àndub mbooloo mi waaye li nga xam ne lépp mooy dëgëral suñu relation yi ba mu gën a dëgër ñuy dimbalante bu baax di def tabaadul suñu diggante waaye di def taraaxum loolu nag jataay yi ngeen def bokk na ci yi koy dëgëral kon nag ñu ngi leen ci ndokkeel bu baax baax istixraar bi nag bokk jën bokk nañ lu koy dëgëral mooy justice maanute am réew wala ab dëkk wala mbooloo bu justice amul seen dëkk ci moomu ca mbooloo moom la istixraar bi ca am yàlla wax wax ci arxaan inna allaha yaamuru bil adli wal ihsaani wal ihsaani wa iitaa'i zil qurba wa yanhaa anil fahshaa'i wal munkari wal bagyi ya'izukum laalakum tasakkaroon te jégalu dama xaw a socc yàlla moom dañoo digal ñuy maanu ci suñu jëf yépp ak di rafetal waaye nag mu tudd wér-gu-taayu sa xorbe ak jegeñaale nag moom nga koy jox ak xam bu wér a wér. tere itam ay ñaawteef yépp ak lu ñuy sib ak mbewte ñu xam ne yàlla bëggut ñi am kàttan di bonqoos ñu néew doole seeni àq te loolu mi ngi am ci réew mi bu baax a baax nag bëggut mag ñi di lekk alali ñu néew doole alali xale yi li nga xam ne réew mi da ko am ca suñuy doom ak suñuy sët war koo jariñoo suñu bëgg bëggu nag ñun ñu fi ñun ñii fi dund nag lekk lépp bàyyi suñ war a juddu ba duñ fekk dara waaye bëggu tam ax di naan dereti way ñàkk ñi lu dikk rek ñi am alal jël ko bàyyi ñi néew doole ñi néew kenn du leen ci mukk bëggu ci réew mi ab groupe rek nekk fi di am seeni teraanga di dund dund bu neex yor seen alal bëreem gum nekk fee ñàkk lool sonn lool kenn boolu leen ci dara di xiif di mar yooyu yëpp injustice la yoo xam ne sunu borom da ko bañ te réew moom taxaw nag réew moom jàmm du fa mën a am bu fa nekk itam nan lëre jàmm ja dana masa am bis mu soppi ko sunu borom bëggu am ay nit ay saay-saay nekk ca ñu kaw ñu baax ña jël teraanga ji yëpp ñu ñu baax ña nag nekk ca suuf sonn lool kenn du leen boole ci dara saay-saay sa yor lépp di def la leen neex yooyu yëpp insist la yoo xam ne day yàq istiqraarub dëkk sunu borom dafa bëgg ñu maanu ci lépp ci diggante mbindeef yëpp ngay xool nit bu ko xool ci ab juddu bu ko xool ci aw askan bu ko xool ci feeñ la dëkk waaye danga koy xool ne nit la doomu aadama te sunu borom moo teral doomu aadama nga jox ko àqam waaye bul ne kii moom daa dëkk région sàngam wala daa bokk ci famille sàngam naa ko jox ay àqam ndax boo ko deful mën naa indi leneen waaye ki nga xam ne nag moom sàmm ñoo lay rek kenn du ko jox axam loolu baaxut ci am réew da ngay jox nit ñi seen ax ca doo xool seenu xeet waaye doo xool seenu melo waaye doo xool seenu làmmiñ doo ko doo ko tëgg ci ne sama dama ko yóbbu ñay làkk nangam wala ñi ñoom ki sàngam walla xeet sàngam walla pas-pas sàngam wala kuréel sàngam yooyu yëpp day yàq ab dëkk boo jàngee jëm ci benn pas-pas bàyyi kees daa nga jàng jëm ci benn xeet bàyyi kees bàyyi benn leçon bàyyi yooyu yëpp day indi jëngutum réew te yàlla wax na ca inna allaha yaamurukum an tu'addul amaanaat ila ahliha waaye wa izaa hakamtum bayna naasi an tahkumu bil adl nit ñi seen amaana bi ñu la jox ku la dénk dara ku la ko dénk lu mu di doon fexeel ba joxaat ko ko nam la ko dénke woon bu fekkee ta gën noona waaye bu mu yées mukk di dénk la dara nga delloo ko ko mu yées nam la ko dénke woon loolu du matal ak amaanatu waaye booy àtte nit ñi itam nag bëgg na ngeen àtte ci maanu te maanu te nag daa war a feeñ ci xoriya nit ñi seen indépendance da leen di bàyyi ñu am moom seen bopp waaye bu fekkee nit ñi da leen bëgg a tënk kooko maanduto ya day des da leen jox seen siyaada nit ki tolluwaayam bi ko yàlla jox da ko koy nangul jox ko ko waaye ba ci wàllu politique itam nga yamale leen ci booy séddalee am koom moo xam ne njëkk ko bokk itam nga yamale ci ñëpp booy àtte itam nga fexe ba àtte ba nga sàmmoon da ci àqi nit ñi fexe ba kiñ tooñ boo koy àtte nga jox ko ak dëgg fexe ba ci tooñ nga mbugal ko waaye léeg-léeg saxaan bi day am ci dëkk bi da gis nit da lay tooñ ne la yóbbu ma ci yoon ndax xam na ne bu demee ci yoon yow yaa cee des te yoon dafa am solo am dëkk bu amee justice xoola États-Unis gi bëkk bëkk démb Trump benn siis boo xam ne nit ku ñuul la amagul ñeent fukki at moo ko inculpé woo ko moom mu ngi mi ngi New York la nekk Manhattan dafa dafa inculpé Trump mu jógee fa mu dëkk ñëw fekk si ko mu teg ko daal di mu koy daan te ñeenti at yëpp mi ngi doon seet lu mu ko lu mu ko teg ba am yoo xam ne jàpp na ne am na war na koo teg tromp xam ngeen Trump bi mu ko bi mu toogee ci réew mi nanguutoon def passage service dafa am yëpp document yu yóbbaale woon Capitole boobu ñu fa duggoon ak ak évier yu ñu ko teg yooyu yëpp mu boole ko waaye da ko ñëw mu teg ko daan yooyu ba noppi bàyyi ko fii ba décembre ok avocat ñu ñu ñu ñu waaj dikk mu àtte leen loolu mooy am réew mu tegu ci yoon lu kilifa ki tromp tromp ñëpp xaalis ci àdduna bokk jiite Amérique benn xale bu nekk am ba magistrat ak procureur teg ko loolu te yoonu état ba niwu ci loolu tax loolu moo am réew mu tegu ci yoon fii nag malheureusement réewul noonu da gis dan lay loo xam ne wóor na la dëgg moom ca mooy doon dëgg ci yoon kon nag nan fexe ba buñ bëggee réew mi di dal yooyu yëpp ñu koy sàmmoonte loolu mooy indi tumaanina ci am réew weyn xakkante faakum bayna naasi bil xist inna allah yuhibbul muqsitin ñu xam ne daal ci gàttal assalaamu wal istixaar marxuurun bil xabli wa xefs xoqoxil xibaar ab dëkk mënut a am jàmm am stabilité ci dëkk ba amul justice bu bu maanu ci dëkk ba sàmmante woon ak àq nit ña faw ñaar yooyu day am jàmm soo ko am ci dëkk ba fii àddina si ñu ngi xotti àq nit ñi fii àdduna si ñu ngi tooñ nit ñi fii àdduna si ñi ngi taqale mbooloo yi fii àdduna si ñu ngi fekk lu ñu yëpp bokk ñenn jagoo ko fii àdduna si ñi ngi atte atteen woo xam ne teguwul ci dëgg fii àdduna si am na ab mbooloo muy not population di leen jëme fu leen neex fii àdduna si ñu ngi am ñu leen di ji not am mbooloo ñoo xam ne ñu ngi not population yi bañ leen a faale di def leen bëgg fii àdduna si ak dëgg bu dikkee ci ñu am doole dañ ko yóbbati muy neen fii àdduna si neen bu dikkee ci ñu néew doole dañ koy bëti muy ak dëgg si adduna yi dox noonu jàmm moom du am si adduna mukk faw ñu jox bu dëgg di dalee ci borom alal wala borom kàttan wala ku même ku yorum réew sax ñu teg ko dëgg googee waaye bu dalee ci ku néew doole itam ñu teg ko ko waaye rek bu fekkee day jaare boor am ñoo xam ne bu leen dalee kenn du leen laal am ñoo xam ne bu leen dalee mu laal leen loolu moom du ànd ak istiqraar mukk ci am réew yooyu yëpp kon nag yu a bàyyi xel la ngir buñ bëggee réew mi dal yaa wax yàlla wax na ci arxam yaa amanu kunu xawamina lillahi suadaa bil xisti wala jirimannakum sanaan xawm xala ala taadilu ihdiloo yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla na ngeen sa lu ngeen di seere ne ko def ci maanute bañ nit wala mere nit bu mu tax mukk nga bëgg koo tuumaal lu ko lu mu defut baa nga bëgg koo àtte lu mu ko lu mu defut lu man di am de eediloo nee na maanu ci àtte ba wa aqrabu li taqwa wa taqullaha in laa xabirun ma tamalun kon at réew mi buñ bëggee mu dal nan tënku ci baati kilifa yi wamatuwaat baax ci ñoom te moytu kàddu yi nga xam ne mi ngi jub bu baax ca Sénégal maa ngi wax ne gis naa ne léegi jamono jamono yi gis naa ne lu taxawal loo xam ne moom mel na ne ku tuddati njiitul réew baa nga wax ci lu wër sa baa nga wax ci baa nga wax ci lu dul jàmmi réew mi boo ko defee balaa ñett fan da nga dem kaso bu soobee la ñu ngi sàkku ci ñoom nag loolu ñu ñu may état may njiitu réew may ko ci réew mi nga xam ne ku wax ku wax lépp loo xam ne yaa ngi woote violence boo ko defee ci ci Facebook ba foo ko dugal balaa man ñett fan gis na la ñu boole ci kilifa yi diine yi rek fexe ba ñoom itam ñi leen di attaqué di leen wax lu waxawut ku ko defeti ñu fexe ba ñoom balaa mat ay bis ñu teg la daan yi nii teg daan yi nii teg ndax ñoom kat am na taxawaay boo xam ne taxaw ko ci réew mi mbokk yi xam naa wax ji moom dama doon. taxabul rek waaye ay feelee yéene waaye li taxaw ngeen tànn ma bëgg ma waxal leen si manqué na lu bari bari waaye maa ngi leen jégalu di taxawal fa wax ji asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulahi wa barakaatu. jërëjëf euh, sëriñ Sidi Mbacké ci wax ju am solo ji nga xam ne moom nga ñu baax tey te mu jëm ci euh, kilifay diine yi ak. taxawaay bi nga xamante ne moom lañu taxaw ba réew mu amuk dal ak dal googu noonu naka la ñuy fexe ba sàmm ko xam naa ne eh, njëkkanteeg waxtu wi tax dañuy jox kàddu gi rek sëriñ amsetu Mbàkke moom sëriñ Abdul Ahad su ko defee mu def taxaw seetlu ci li nga xamante ne moom la sëriñ doon waxtaane bala ñuy ñëw ci laaj yi mel na ne laaj yi xaw naa bari waaye nag sëñ bi da ciy tànn yenn rek su ko defee mu tontu ci xam naa ñu jox kàddu gi sëñ Amsatu Mbàkke moom sëñ Abdou Lahad su ko defee mu toftal ci ay kàddu rek ñu door a ñëw ci laaj yi. wa rahmatullahi taala wa xanaa di am rek ak bànneex ci ñëw gi ñëw fii ci Daarul Muxti di sunu dëkku sëriñ. ñu war fee ñëw ngir loolu di sunu dëkku waajur ñu war fee ñëw ngir loolu di sunu dëkku maam ñu war fee ñëw ngir loolu biñ ñëwee nag ñu fekk suñuy waajur ak suñuy jarbaat ak suñuy doom ak suñu rakk ak suñu mag yépp sax di leen sant bu baax ca taxawaay bi ngeen taxaw ngir sàmm ndono li ku ne xam na Cheikh Ibrahima Fati fi mu taxee woon sëriñ bi ak fi mu ko féete woon ak lim ko defal ci wàllu diine ci wàllu xam-xam ci wàllu liggéey ak ci wàllu yar li sëñ bi tukki lépp moom la dénkoon njaboot gi yépp fu mu fu fu masaa yónni itam comme gën a wóolu moom lay doon ba mu ko yónnee ndar ku ne xam na ni booba yëf yi jafe na waaye sun maam jooje aw fitam aku fullaam aku dëggoom tax mu taxawee liggéey ba ba indi ko sëñ bi bëggal mu def ko bi sëñ bi génnee batale ko tam njaboot gi yëpp mu saytu ko sàmm ko kon su ngeen dajalee fii ñu fekk fi ay ndaw rafet nañ njort yi liggéey bi du ngeen ko mujjee mukk mu réer ndax jàkka ji bari na ay tut tànk te xam nañ ni bëgg lu baax rek moo leen ñor ndax koor moom dafa ànd ak xatar dafa ànd ak xatar waaye teewul ñépp ñëw nañ teew loolu nag ab junj la boo xam ni wala seet la boo xam ne mën nañ cee xame ni suñ yu maam Thierno bi day jëm kanam rek ndaw yi ko ree tam rek di suñuy rek di suñuy doom ñu ngi leen sant bu baax leen gërëm di sant sëñ Sidi ci waxtaan wu rafet yi nga xam ne def na ko li mu wax nag lépp dëgg la dëkk bi li tax mu toll fii mooy kilifa gu mat kilifa yar ñooñam defar leen ba mu fi jógee ba tey dara soppikuut xanaa jëm kanam rek loolu rek doy sëkk tegtal ci kilifa gi sëñ si doon wax waaye ñu xam ne nag jamono yi dafa wute ndax yàq gi dafa bari tooñ gi bari ñàkk màndu gi bari ci li sëñ si di wax léegi ñu ngi tëj gor yi di leen jàpp di leen tuumaal ku wax lu wax ja tuuti tuuti ñu fitnaa la ci loolu nag lu mën a ñàkk la te ñoom attewuñ ci dina attewuñ ci alxuraan ci tubaab bi rek lañuy ñuy attewu quatre pour cent nag wala quatre vingt pour cent su neen bëgg atte ci leneen kon man du mën naa mukk mukk mukk mbaa bokk dana jafe ndax atte tubaab bi la ñuy bëgg a doxal fii benn xisa bu gàtt rek boo xam ni li nga xam ni gars yi njiiti réew yi amuñu solo ci tubaab yi dañuy tegtaloo am na njiitu réew li fi ne woon yam doon tëkkale te ñëw waxoon ko kilifa gu mag gu fi nekkoon naan ko tubaab yi dañuy tere yalwaan dañu tere jéng dongo yi ak jaay dorog xam nga yooyu nañu wutee ba mu ko waxee sëñ Saliou sëñ Saliou ne ko yalwaan de moom suñu borom dina koo digal ba noppi dig ñu jëb yool moo tax ñu koy def yéen nag da ngeen am doole di war ay ab yoo dem bitim réew di yalwaane te bu ngeen ñëwee séddoo ko ak askan ba noppi askan bi gën cee néewle kon dañuy dem ci réewi tuwaay di wut xaalis bu ñëwee ñoo koy lekk ni ko jéng itam boo gisee ñu koy bañ kuñ dañ dañ koy def ngeen di ko def noonu dañ koy def ci tànk yéen ngeen def def ci loxo ndax ku kuñ jàpp dañ lay monté dañ koy def ci loxo te kuñ jéng ci tànk bañ a la jéngale caay ay loxo rek moo tax ñu ko def drogue nag sama yoon nekku ci ndax xawma ci dara xoole yi ñu boole lu yàq diine sarax li tiyaaba ji nekk jàngal nit ku dëng nga bëgg mu jub nga jéng ko tiyaaba ji nekk waaye léegi ku ñu jéng ñu tëj la ay madal xaya daanaka ay fukki at lañ leen crime lañ ko def réew mel noonu nag man dox ma dem fi dellu woon ci yàlla dellu woon ci yor yonent yon yonent bi sallallahu alayhi ak ñii sëriñ bi waag maam Thierno mii jàmm du ma am ndax ñoo fi indi jàmm ji ndax bu ñu fay woon rek musiba am sëñ Tuubaa dafa jéggale kon nag ñoom ñu ndaw ndaw yi ñuy def ay wax yu ñuy wax yu ñaaw a ko mën a jéggale kon sëñ si ñu ngi lay sant ci taxawaay bi ak wax ji di sant mbokki Darou Mouhty yëpp di leen sant di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullah euh, sëriñ Hamsatu Mbakke moom sëriñ Abdoul Ahad ci kàddu yu rafet yi nga xamante ne moom nga toftal ci li nga xamante ne moom la sëriñ doon wax xam naa ne laaj yi nga xamante ne aju na ci waxtaan wi xaw naa bari waaye dañ ci tànn yenn rek su ko defee sëriñ bi tontu ci bala ñuy yëkkati jotaay bi kon ñu jox kàddu gi oustaz Ahmadou Mbaw waaw mu ne xam naa ne kon bala ñu ñëw ci laaj yi dañuy jox kàddu gi sëriñ Abdou Assis Mbacké su ko defee moom tamit moo am ay kàddu yoo xamante ne dana ko toftal ci lii nga xamante ne rek moom la sëriñ bi doon wax. nga di ko bi wala nga di ci teg benn baat amut loolu la sëñ bu wax rek loolu ngay def wala romboon sax doo ko nuyu wax nañu ne bi mu nekkee Jolof eh, am na benn tubaab bu ñu fa yabaloon di ko wax xooloo sëñ bi ba xam moom nit doo nga la jàng waaye dafa wax ne eh, bi mu fa yàggee bu génn dafa wax ne. kii de li mu bëggoon lépp defal ngeen ko ko ndax li mu bëggoon mooy wéet ak nitam ba li nekk ci moom mu def ko ci ñoom seetlu naa ne ñi muy bayloo ñi ngi bay ñi muy binduloo ñi ngi bind ñi sàkket ngi sàkket ñi jàng ngi jàng bu leen rombee sax amuñu ci ñoom soxla lu mu la wax rek li fekk nëpp woo am soxla mu ne kon benn bàmba ngeen yoreen waaye bu ngeen ko bàyyee fii da ngeen yoreen yoreen yeneen bàmba yu bari ndax li nekk ñoom dana ko def ñoom noonu la am murit moloon fii ñu toog nii tey jii ndigal la ko sanc Serigne Touba bu fi jaaree daa jógee Mbacke Bawol wala Daaru Salaam jëm Mbacke Kajoor jaar fi waaye bu ab àll dong la mu jox ko nag ndigal ne ko sañcal fii mu toog fi sanc fi na fii ba am fim at dëkk bi lakk mu yónnee ci sëñ bi ne ko kër dëkk bi de dafa lakk ba dara des fi mu ne ko da ngaa bàyyi kër ji kër ga ca gannaaw dellu ca gannaaw kon ndigal mooy li nga xam ne moom lañ xamoon daan ko def di ko wéy bis bi nga xamee ne mooy bisub Daaru Muxti bii ba fi si borom Daaru Muxti jógee Euh, Sëriñ Moda Balla wax Cheikh Abdou Khoudoss ne ko bindal ab lettre tàggu ci ndigal Cheikh Mouhamadou Moustapha mu jox ko ci ndigal Cheikh Abdou Khoudoss nee na maa bind lettre ba mu jox ko ci ndigal ñu def ko gannaaw bi fii sëñ Fallou jógee sëñ sëñ Modou Moustapha jógee sëñ Fallou soppiwaat bis yóbbu ko ci bis bii sëñ Abdou Khoudoss daraan wax ne euh, ki fi doon joxe ndigal loolee ak ku ko fi nekkal bu ne woon bàyyi leen bis bi ñu bàyyi ko kon fii moom na seen xel dal ne ñun de ay jullit lañu ay gor lañu ay murit lañu li nu fas yéene mooy fii ku fi nekkal Sëñ Tuubaa yaa moom dëkk bi yaa moom yaa nu yilif loo def la ñuy def loolu moom noonu lañ fas yéene ci lañ fas yéene dund ci lañ fas yéene faatu loolu itam lañu suñu waajur meloon man sëñ Modou Balla toog naa moom mu ne ma du Mbakke man ne man ne ko Mbakke mu ne ma kii mooy seen mooy seen roykaay daal may joxal béykat ma ne ko waaw mu ne ma moom moom waxoon ne ma. sëñ Tuubaa de musumaa jox benn ndigal ma gisaat ko te du loolu daa noppi wala boobu mu soxma ci soxla la ma ci biir ndigal woowaat na waaye bu ma joxee ndigal de dem naa ca su ma ko gisee te nu mu def mën na ko ceer na mën na mën ko loola noppi te ne loolu musu wàññi sama jaam yàlla dara daana kooku nag moo doonoon mooy seen roykaay moo wallaahi moo ma ko kon nag ci loolu lañ fas yéene wii fas yéene fu saaka sëñ Tuubaa jaar jaar nun ay gor lan ay jullit lan lii nu sëñ Tuubaa defal xam nañu ko day def nag boo nee sëñ Tuubaa tudd wala nga ba ma defalee nangam ñi ñi ñenn ñi jàpp ne da booba nu sant yàlla mi nu boole sëñ Tuubaa ba noppi waaye bokkaale woonu kenn kon noo ngi sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa xam naa ne benn laaj rek la eh, laaj sëñ bi su ko defee mu tontu ci rek ñu mën a ñu jégalu ci yeneen laaj yi ndax xam naa ne temps bi moo xaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ci weer wu sell wu tedd wu màgg wi sëriñ bi ñu ngi lay sant bu baax ci waxtaan wi macha allah liñ ci doon séentu am nañ ci lu kawe njort laaj yi bari na lool waaye mbokk mi nee na looy dénk ñi nga xamante ni ñoom la réew mi nekk nii seen loxo fi mu toll loo leen di dénk. bisimilah. waaw de li ñuy dénk kilifa rek am réew moom. day lu rëy lu yaatu ku ko yor nag faw nga yaatu dënn yaatu yaatu dënn fii réew mu toll itam mm, ci ay tiitaangee ki jaaxlee ki gëlëm moom lu ñu ciy génne mooy diisoo sunu borom wa saayirhum fil amri la wax faw mu dégg naa wax na ko sax ci ne mi ngi woote waxtaan waaye faw ñu dëggal ko ba mu ba doon li ñuy wax ci ta làmmiñ waaye danga koy jëfe ca xam ne mbir am réew ak lu man ak alhamdulilah